di leen baalu àq te di ko baal di ñaan yàlla subhaanahu wa mu nangul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu bàkkaar yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli xéewali ak barke yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def euh, mbokk yi suñu waxtaan yi weesu ñu ngi nekkoon ak yéen ci suuratul isra waaye nekkoon ak yéen ci li nga xamanteni ni mom moy aya yu am solo yu yalla subhanahu wa taala indi ci sar wi ndax ma ngi ko wax ci waxtan yu wessu neena dafa am ñaari aya yu jitu ci kanam kanam ci commencement sar wi yalla am fu wax ni inna hadha al qurana yahdi lillati hiya aqwa muy ben mun alquran ji dal day defar alquran ji dal ku ci japp raw fi ci aduna ak alakhirah ñu ni benn mu daldi waxaat ni wa kulla shay'in fassalnaahu tafsilan mu ni bàyyiwuma dara dama leeral dama détaillé mu mel ni nag loolee mu wax ci la dugg si nag mooy ay yi ñu nekk bi paase wax nañ ci lu jëm ci bokkaale ñu jóge fa jàll ci waajur yi yi nga xamante ni nii moom moo ci des nag mooy mbokk gi ñi nga xamanteni ni ñom lañ dëkkal ci biir dëkk bi yàlla subhanahu wa taala di wax ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم مكي يلا نينا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا يعني إننا في نينتي ندينكاني مني وآت ذا القربى حقه يلا نينا نغا جوخ دكندو àqam dëkkandoo la wax dëkkandoo bi mën naa nekk mbokk mën naa bañ a nekk mbokk mën naa nekk ko bokkal diine mën naa nekk koo xamante ne nii bokkoo leen diine waaye yàlla li mu la wax dafa leer neen daal maadaama dëkkandoo la rek jox ko àqam wa aati dal qurba xaqahu àqi dëkkandoo nag bari na lool bokk na ci àqi dëkkandoo nga bañ a luññutu ay mbiram bokku na ci àqi kendo nga bañ leena lor bokku na ci àqi kendo boy duglu boy dugg ci genn kër nga yeglu bokku na batay ci àqi kendo ngay bañ def lenn lo xamanteni ni nii nga dëkkal loolu di déranger lolu arranger wu len waye nga top sa banexu bakken sa yu xëyee sa radio yokku ba mu ñi kenn du nalaw kenn du deg lolu bokku na ci yi nga xamanteni ni yalla subhanahu wa taala daf ko tere bokku na batay ba tey kazalika ci àqi dëkkandoo su ngeen bokke koñ bi lepp loy def ci mbedd mi na nek lu ngeen di depo way jël sen ndox tour ba danaka buntu keur jàmbur nga koy tour wala bu kenn genné bale nga genn takal wala ci bir keur gi sax par na say ling yi fi ñuy waañ wa ñuy toggeek ëtt bi yow lu la neex def lu la neex wax ci ëtt bi déedéet islaam bëggul loolu islam dafa bëgg bu ñu nekkee ci biir kër gi ñuy moytu yu bari di bañ di tooñante di jéem a daw li nga xamante ni nii moom mooy coow lépp loo xamante ni dafay indi ay féewaloo dafay indi ay xeex dafay indi ay xuloo islam nee na na ngeen ko moytu na ngeen ko daw tey jéem rafetal tey jéem a jëf-jëf ju baax loolu moom mooy tax jàmm am waaye tamit kasaalika prinçay nga dëkk ak kenn te du ak jullit est-ce que da nga naan duma ko faale déedéet suñu islam digaluñu loolu suñu diine digaluñu loolu mukk même ki nga dëkkal bu fekkee bokkoo leen diine jox ko ay àqam bokk na ci àq yi même bu xewlee bu la woowee nga dem waaye nag toujours na nga xool la mu xewle lan la ngénte mbaa mu am dëj mbaa mu am bànneex man ngaa dem nga souhaité ko toog ak moom bu fekkee dafa nekk ci naqar nga masawu ko bu nekkee ci bànneex nga daal koy euh, ndokkeel waaye bu fekkee nag la nga xamante ne nii la mu la mu la mu nekkee loolu lu jëm ci wàllu diine la jëm ci diine loolu islam digalu la nga fekk ko ca déedéet waaye jëflante gi seetante gi demalante gi jàppalante gi loolu sa diine moo la ci njëkk a woo kon mbokk yi nañu bàyyi xel loolu bu baax wa aati dal qurba xaqahu wal miskin yàlla subhanahu wa taala nee na miskin bi tamit na ko jox àqam kon ndekete miskin bi alal ji la yàlla jox moom def ci am àq loo xamante nag ñu bari comprendre uñ ko yow alal ji la yàlla may ñi amul ci koñ bi ñoom dañ ci am àq ñi amul ci say mbokk dañ ci am àq dangaa war a génne di leen jox da war a génne di leen dimbali ku ci am ordonnance mënta jënd boo ko manee nga jëndal ko ku ci xiif boo ko mënee jox mu lekk nga jox ko koo ci mën a may ab dépense nga may ko ci koo ci mën a jàppale mu tukki nga jàppale ko mu tukki koo ci mën a jëndal ab oto nga jëndal ko oto bu fekkee mën nga ko yooyee yàlla subhaanahu wa taala moo ko digle ndax njariñ moo ciy nekk njariñ lan yàlla dina nattu nga nekk ci famille yow kese nga am su ko defee islam ni la dimbalil kaneen ci mbokk yi boo dimbalee kaneen bu amee kooku dimbali kaneen parce que àdduna bi noonu la ko yàlla subhanahu wa taala bindee koo fi gis mu dem dañu ko buux waaye tamit jàppalante dimbalante moom mooy tax ñu nekk ci jàmm moom mooy tax suñuy ngir di dox miskin nag wax nañ ni mooy koo xamante ni nii dafa ñàkk te mënta laaj te moo fi bari nee na ñi ngante ñoo yalwaan ci mbedd mi ñun tudd ñu ay miskin ñooñu ay faqiir lañ mais miskin nag mooy koo xamante ne nii ñàkk na te mënta laaj ku daan liggéey dem ba liggéeyatul mu leer ne la kii salaire yi amoon amatu ko fayoo tookul wala ku dem ba retraité toog këram ñooñu dañu war di leen gersu dañu war di leen jékk jékki di leen bett di leen am lu ñu leen di jox wa aati dal qurba xaqahu wal miskina wabna sabil ibnu sabil mooy koo xamante ni dafa nekk ci tukki comme te dafa doon tukki ñëw amul fu mu amul limu lek amul lumu nan soko mané fat sa kër def ko nga jaamu ci yalla subhanahu wa taala waye mbokk yi nañu bayyi xel lu am solo moy jamono dafa soppeku legi nit dina ñew ne la damay tukki dama bëgg fu ma fanaan ndakitu yu ab sàcc la day bayyi ba guddi mu dugg ci wañ wa sàcc gaz ba yobbu mbaa mu daj yenn armoire jël or ya jël alal ja daal di dem kon loolu tamit nañ ci bayyi xel lépp loo gis organisation la tey jii am nga xamante ne ni ñëw na sa kër di fa fanaan si te xam nga ne kat kii xamoo leen ko doxandeem la fi na jël seen matuwaay yu mat sëkk ba nga xamante ne nii kat ah bis bu fi defee njombe du rëcc loolu rek moom moo ci am solo parce que ñi bon ñoo yàqal ñi baax tey jii ñu bari nangootuñu fat kenn seen kër bu njëkkoon boo daan dox ci mbedd sax ba am lu la dab da ngay dugg benn kër rek daal di ko fay ñaan ñu jox la nga daal dem. mais léegi prince mën ngaa dox sax ba dugg kër ni leen damaa soxla toilette bi masalan ñu daan ne la jéggal ñu ko ndax lan xamuñu kii dugg nii kan la man naam daf koo ñëw pour am lu mu def ci kër gi wala déet moo tax bis bu jot nañuy rafet njortu waaye tamit nañuy moytu yooyu yépp yàlla subhaanahu wa taala xamal nañu ko yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ñu ciy bàyyiloo xel waaye loolu teewul nañu yi xel bu baax ndigal la mooy nee na nañu rafetal jëmale ci ab tukkikat ku doon tukki daal ab doxandéem ñëw ci ab dëkk islaam li mu ñu digal mooy nañu ko tere nañu ko nañu ko teral nañu ko teral nañu ko teg ci foo xamante ne nii fu baax la ngir nga xamante ne nii moom dafa wéet ndax dafa tumuranke gisul papa gisul yaay gisul kenn kooku nañ ko jàppale dem na ci sax ba même bu fekkee borom alal la mais dafa jóge seen dëkk ñëw fi ñuy génn azaka islam nee na nañ ko ci joxaale xoolal loolu diw mu ngi dëkk Mali waaye ñëw na Sénégal yorul dara dara dara te moo ne boo demee Mali moom borom alal la fa mu ñëw fii Sénégal ñuy génne azaka islaam nee nañ ko ci jox nga xam ne kon loolu tàngalim islaam la yaru islaam la ngir bëgg lan ñu daal di dund ci jàmm dund ci li nga xamante ne nii moom mooy salaam loolu la islam woote mu daal di wax nag wala tubazir tabzira yàlla nee na bu la bu la bu la mayee alal bul nekk ab yàqkat mbokki yi am na ñoom tamit dañoo mëna yaq lool say yu ñu xé dañuy tal rek ala du ñu yor dañuy tal tal di yaq rek luñ rombu jënd luñ bëgg jënd luñ bëggul jënd luñ leen indi ñu jënd duñu xol li ñuy jël lan la ñoom daal seen alal jëpp dañ koy tal yalla nak neena lool ab du ko def neena wala wala tubadir tabdira parce que fo gis ab kat fo gis ko tane day pasar pasare rek koku na xamni mom mbokum mbokkum la innal mubadirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura yàlla nee na yàqkat yi mbokki seytaane lañ te seytaane dafa weddi yàlla subhanahu wa taala da yàlla daf koo digal mu bañ yàlla daf ko wax defal mu bañ waxal mu bañ looloo waral yow booy yàq dangaa yor jikko subhanahu wa taala wax ba ni par yenn saa nga nekk ci famille mbaa nga nekk ci ab koñ defal la nga nga am mba nga tane len am na ñoo xamante ni amuñu way ñañu dëkkal ñoom ñoo tane yalla nee buñu ñëwé laaj la fekk jamono ji ñu lay laaj yow amulo yalla nee bu boba na nga len wax waxtu neex na nga len dig yalla diglé na sax loolu nit ñëw ne la dama bëgg nga fajal ma soxla fekk kat yow yoro deureum Yalla neena bu boba nang ko wax wax ju neex nang ko wax wax ju bax nang ko wax ni ko ah fi nga ñewé de baxul xamna bu ma mënee jéggal ba wër wi dee bu fekkee man nga lepp fanen bu wër wi deewee ma jox la bu fekkee man nga lijeenti fanen après ma jox la yalla neena na ngay def lolu bu fekkee yow man nga ko fay après nga daal di koy dimbali mom la wax ni wa imma turidanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura yàlla neen na nga wax wax ju nooy moo tax benn waykat dafa wax ni man dey ñi may laaj saa yi ñu ñëwee rek ma yëkki jox leen waaye nee na pare saa yu ñu ñëw laaj ma du ñu fi fekk lu ma yëkkati jox leen waaye dinaa leen wax wax ju neex wax joo xamante ne nii bu ñuy génnaat kër gi di dem sax fàtte nañ seen problème te àdduna noonu la islaam loolu la bëgg waaye nit ñëw laaj la nga jànni ko nit ñëw laaj la nga waxe ko wax ju ñagas kàddu goo xamante ne nii day réccu sax lu mu fa doon ñëwee loolu islaam bëgg ko waaye islam tamit kazaalika bëggul nga jox nit ki ba pare ba mu dem nga koy xalab di ko xas ak di wax kàddu goo xamante ne nii kàddu gu ñaawul la yaa ngi dégg yàlla subhanahu wa taala nee na wala tajaal yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kulla al basti fa taquda maluman mahsuura allahu akbar yàlla nee boo amee alal yow borom xaalis bi bu fekkee yaa ngi may déglu yàlla nee na bul nay lool bul jël sa loxo bi takk ko ci sa put bi fii yàlla neen bul jël sa loxo takk ko fii wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik loolu kinaaya anil buxl yàlla dafa laa bëgg wax ne la bul nay ba war a génne lomte ni yow leer na li nga ko war a génne nga bañ ni doo ko génne war a joxe dépense 2000 francs daan ni 1000 francs ngay joxe ndax la nay am nga ko waaye koo nay a génne naye nay ba même ordonnance sax bu ñëwé da ngay da ngay xaar kaneen jëm ko jënd jëk wala kaneen génne dedet mais yow man nga ko génne mais da ngay xaar kaneen islam diglu ngul lool waye tamit kasaalika contraire bi ah bul jël sa loxo bi tamit tàllal ko bu mu ëpp wala tabu sutuha kullal basti yàlla leen tamit bul def lu wax rek nga génne neena na waaw lu wax rek nga génne xaaliss joxe fu 10000 wara dem nga def fa 20000 fu 5000 war a dem nga def fa 10000 foo war a deful dugal 1000 francs nga dugal fa 2000 francs daal di yàq yàlla nee na bëggul loolu nee na loolu baaxul te yàlla nee na boo ci continuer nekk ci bis dina ñëw di nga toog ñu lay xas ak a yedd waaye tamit kasaalika ngay am lu la naqare ci sa xol bi waaw dinañ la këmax dinañ la wax loolu naqari parce que yaa ko teg sa bopp moo tax daal nekkal ci diggante bi baynal muxaalaati wa taqsiiri manzilatun hiya allati jaalatna ummatan wasata yàlla nee na nañu nekk ci digg bi toujours nañuy nekk ci digg bi wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata yaa ngi dégg yàlla nee na moom moo ñu def ñu nekk ñu diggu doomu bul nay waaye tamit bul ëppal loolu ci joxe bis bu jot rek xoolal li yeyoo nga daal di koy génne daal di koy joxe yàlla nee na inna allaha yabsutu liman yashaa wa yaqdir innahu kaana bi ibaadihi xabiiran basira yàlla neen na ngeen xam ni wërsëg man maa ko yor maay jox ku ma neex maay xañ ku ma neex ku nekk la ma ko jox man la maa ko natt ku ma jox lu tuuti lu tuuti loolee na nga xam ni ci man yàlla la bàyyi ko yàlla nee na aka maa xam samay jaam aka leen a mokkal aka xam bu baax a baax a baax li ñuy def kima jox lu bari xamna ni li tax ma jox ko kima jox lu tuti xamna tax ma jox ko kon lu la yàlla mënti jox li ci ëpp solo rek moy nga sant ko yow mi am alal ju bare bare bari bari gis nga boo doyluwul ya ngi ñàkk yam yow mi ñak soo muñu ya yaay gëna torox parce que yow di nga bolé ak ñak ak ñak muñ bu ko defee nga daal di perte ñaar yépp su ko yow mi am doylul yow mi ñak muñal di góorgóorlu ba am imam Shafii nee na amul benn mbakken bu ñeme ak ñàkk waaye tamit am am gu ànd ak ñàkk a doylu moog ñàkk a yam an nafsu tajzau an takuna faqiratan wal faqru xayrun min ginan yutgiha wa gina nufuusi huwa alkafaafu fa in abathu fa jamiu ma fi l ardi laa yakfiha yàlla subhaanahu wa taala moo tax mu wax ñu ci alquran ni lépp loo am mana لب لو نك منا ولله ما فوق السماء وتحتها له المال يعطي من يشاء ويمنع يلا سبحانه وتعالى نينا ما موم نتي كاو اسمان لب ما موم نتي سوف ما جحكم نيخ ما يخنكم نيخ كون بوكي آية يي ني دون جانغات يلا سبحانه وتعالى واخنا في تي اك مبوكو ني ني ني رفتال تي مبوكو غي رفتال تي مسكيني رفتال تي توكي كادي waaye tamit kazalika ku ñëw di laaj ñu jox ko bu ñu amul ñu wax ko kàddu gu neex waaye bu ñu nañ waaye tamit bu ñu ëppal loolu ci ak yàq parce que yàq yàqkat yi ay mbokki seytaane lañ te seytaane dafa weddi te ku weddi fi nga xamante ne nii moom moo lay xaar moom mooy safara yàlla ñaar yàlla subhanahu wa taala dafal dégg ak topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla lu fi dëng ñu xam ne ci kiloon wax la doomu aadama matul saa yu waxee rek mën naa juum kon bu fi njuumte amee nañ ñu ko jéggal in uridu illa al islaaha mastataat وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته